asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sama mbokki sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Argentine ñu ngi leen di dellu di leen ziyaare di leen baalu ak ca di leen baal te di jaale sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñëpp nekk fii fépp ci Argentine ah di leen jaare kilifa gi nga xam ne moo fi bàyyeekoo muy Serigne Sidi Makhtar Mbacké ñu ñu ko ñaanal yàlla yàlla xaare ko àjjana te yàlla yokk leeram ca taas nu ci barkeem di ko jaale nag ah particulièrement murit yi nga xam ne ñoo nekk Argentine xëy na sax du ma wax murit yi Sénégal yëpp la ñuy wax ndax macha allahu kilifa gi ah dafa nekkoon uh, xalifatul xam yàlla wàcce ko ci àdduna bi pour mu ñëwoon régler situation bi ci yàlla defal na ko ci ndam ñu koy ñaanal yàlla yàlla yóbbu ko ci barsàqu maamam ah ñu leen di indilaatal nag beneen uh, publicité boo xam ne dañ ko am fii nii ci bitigu sëriñ Habib si fii ci onse bi mu nekk Rivadavia 25 65 jàkkaarloo ak Western Union bi yàlla dafa def nag fi mu ne nii ñu gën a indiwaat ay bagages gën koo yombal ci yéen ñi nga xam ne surtout maa nag yéen a nekk ci géej ga te doon ñëw fii di jënd siy bagage na ngeen xam ne. seeni jafe-jafe macha allah jàppandalal nañ ko ndax dëkk boo xam ne yéen a nga fa am nañ fa ay représentants yoo xam ne ña nga fa. ñu koy commencé rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk laa Gourouta Ibrahima Faye moom moo ñu fa représenté mi ngi nekk ci galeria Antares numéro téléphone am di 29 20 70 48 képp koo xam ne dem nga foofu noonu bagage yi nga xam ne moom la gars yi di soxla ci été bi surtout li nga xam ne mooy ay verre nekk ay kab aki i saak ak i montre ak yeneen yoo xam ne aju na ci géej gi ah, am na ko foofu noonu bu ñu demee San Bernardo ku ñuy wax Mbay Njaay moom moo ñu fa nekkal moom mi ngi nekk ci cachet Cosa 2875 mook avenue bi nga xam ne mooy avenue San Bernardo ñoom ñaar ñoo dend coosa mooy casse casse principal bi ma nga nekk ci galerie à la nation téléphone am Mbaye Ndiaye mi ngi doon 11 65 33 91 30 boo jógee euh, San Bernardo yéen ñi nga xam ne yéen yéen a nekk Santa Teresita ku nuy wax mbay fay moom moo ñu fa nekkal moom mi ngi nekk euh, cachet dos i 32 dos numéro kër gi mu ngi nekk 529. mais ci kaw 32 bi ci la nekk numéro téléphone am mi ngi nekk 11 33 26 sero 06 boo demee bi sa xesel ku ñuy wax Serigne Mourtala moom moo fa nekk ah moom mi ngi numéro téléphone mi ngi nekk 11 57 32 06 44 léegi bu fekkee ne nag euh, jóge nga foofu noonu su la neexee mën ngeen ñi nga xam ne yéen Mar del Plata ngeen nekk. foofa noonu am nañ fa daaw Daouda daaw da Faye mi ngi nekk ci Rivadavia deux mille cent dix-neuf en face Plaza Colonne bi te nekk ci wetu Plaza La Rambla numéro téléphone mi ngi nekk 22 35 01 07 98 bu ngeen jógee foofu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci province yi am nañ kenn koo xam ne mi ngi nekk Salta Salta capitale Case Mendoza 385 numéro téléphone am mi ngi nekk sero 28 18 07 52 a Ka moom moo fa nekk Gora Ka moom moo nekk Salta kon baax na kon mbokk yi mi ngi noonu bagages yi daal ah bu ngeen ñëwee fii ñi nga xam ne ñoo nekk ci onse bi bitigu Serigne Habib ba tey mi ngi ci onse bi. bi ñi ngi fi nekkoon ba léegi rek en face Western Union bi Rivadavia 25 65 waaw foofu la ñu nekk ci diggante Larea ak Paso foofu la ñu nekk yaakaar naa ne ku ñëw foofu da nga ñu gis. ah bagage yi nag yombalaatale nañ leen ko bu baax a baax a baax li gars yi di wax buuj daal fii moom mbir maa ngi buuj fii asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu